قال الشيخ أحمد جوبخ بخبه الله بخبخ محبة العبد الخديم المنتفي النافي الفرد الجامع الأعلى عليه أكبر رضوانه من خفض الأعداء والأحباء على أربعة أبيات ولهانيات والأبيات محبة العبد الخديم وردي وهو لدى ذي الأرش خير وردي محبة العبد الخديم وردي وهو لدى ذي الأرس قير وردي محبة الأبد الخديم تكفي شرا وأنجل بقيور تكفي محبة الأبد القديم تعطي بركة من بركات المعطي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلتي روتنا سمم بوكي طالبي يسافو أكا سخو دي سيطان شين سين بي دي خلكم برودكسون ñu tippee ko la chaîne des bons valeurs de mouridisme ñu ngi ci wàccaayu cant Cheikh Ahmadou Diaw Paxam di édition 2019 kan moy Cheikh Ahmadou Diaw Paxam ngir gëstu jàmbaar ju mag jooju nga xamante ni si ni moo di Cheikh Ahmadou Diaw Pakha xel kon Production déplacé wu ngir ñëw fii ci ngelamu seet si Serigne Thierno Diaw di ki fi toogal Cheikh Ahmadou Diaw Pakha sultaanul harifin wa mihrafatul harifin ñu séq ak moom waxtaan wu yaatu wu jëm ci dundu Cheikh Ahmadou Diaw Pakha ak kan mooy Cheikh Ahmadou Diaw Pakha ki fa teewoon di Serigne Mor Tali Thiam alalu borom tubaa kon ñu ànd teewlu Cheikh Ahmadou Diaw Pakha akub dundam Serigne Thierno Diaw di ñu ko digtal. barkeb borom Tuuba alhamdu wa sukuru li seyxina wa kulliyatina huna wa hana Cheikh Ahmadou Bamba wal tarda xan sultaani kullil aarifin Ahmadou Diaw mixrafatu kullil xaarifin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi leen nuyoo di leen ziar di leen jaajëfal lu baax ci seetaan gi ngeen ñi seetaan mu mel nak tay ji jii ñoo ngi fi ci kër cheikhuna Serigne Diaw di khalifa Cheikh Ahmadou Diaw Pakha ngir tayu bisub sante Cheikh Ahmadou Diaw Pakha ñu fasiyene ko amal tebeski ba am juroom benn fan ca Touba ndamatu Ngelamu daare yi nooru daare nii tey nag dañoo dukki ngir xam kan lañuy sante sant te moo di Cheikh Ahmadou Diaw Pakha ci histoire boo xam ne dañ ko fasiyene netali te kii ko fi nekkal fas yéene koo amal di Serigne Thierno Diaw Paxa su ko su ko defee kon ñu ñu ñu diglu ko bu baax a baax a baax Serigne Thierno Diaw Paxa dikkal nu ci kan mooy Cheikh Ahmadou Diaw Paxa bi ci njëkk moo di dañuy laaj. Sëriñ Thierno Diaw Paxa kan mooy Cheikh Ahmadou Diaw di maanaam Cheikh Ahmadou Diaw fan la gane àdduna ak i waajuram tamit nu mu tudd ak wan askan la bokk kon loolu mooy question bi njëkk. asalaamaaleykum ربي يسلي الشدي ويسلي لي امري وارزقني من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله bayam ngi tudd suñ pati jaw ndey mi ngi tudd soxna fati jeng waaw bokku Euh, néegu néegub get waaw ci waxtu ndawam nag ci la waxtu ndawam ci waxtu fukki juróom-benn xam daal ci la ci la ko ati wax ne yow nguur si demal jàngi ndax jàng mooy sa wàll waaw mu bàyyi neem ak bàyyam daal di dem laxas di jàng di jàng di jàng fu ne jàng na fa daal ak hoom ne fii newtulo jagal ati boobu waxoon moom dellu waxaat moom na ko demal seet sëñ bi li ngay li ngay li ngay wut boo ko yor mu ñëw fekk sëñ bi ba ba Kajoor waaw jox ko boppam ba mu delloo yoon yoon la ko di siwaat sëñ bi ñëw mbakki yoon yoon moom ko dellu si woon nag ba la ko dellu si woon moo di daan na foowee ci paxa dal yi tali bi soo ci kër sëñ bi dal yi di móolu seen borom di leen móolu ba taxal ko ci foofu jëfa mu ne pas mu mu ne na ñëw ngir laa bi la tali bi ñu bàyyi te sol dal ci kër sëñ bi bi mu ñëwee itam daa yem ci sëñ bi dal ñëw sëñ bi ne ko bët jaw defoon yàlla def xam noppi mu xam ne amu boo yàlla dogalee ba mu delloo rek ci fan yooyu la sëñ bi dal di dem Mbàkke mu daal di bàyyi ko paxam mu daal koy fekk Mbàkke nag taggoowuñ nag ba sëñ bi euh, dem ci géej gi waaw loolu daal mooy tax muy njëlbeen gi tàmbaliwuñ benn yoon tàmbalee Mbàkke Bawol ba Daaru Salaam ba Daaru Alimul ba Daaru Marnaan ba Tuuba bi ñuy gor Tuuba gi tàgguwuñ fi ba ni mu dem Mbàkke Bari Mbàkke ba ni mu demee ci géej gi tàgguwuñ benn yoon. kon noo ko déggandoo mbokki murid yi ñuy seetaan ginnaaw loolu kan mooy Cheikh Amadou Diop Pakha Serigne Thierno Diop Pakha dikkal nañu ci. ñoo xamaat beneen laaj boo xam ne dañ ko ko fas yéenee laaj muy maliku nuxaat gi lan moo ko waral. waaw maliku nuxaat moo di mbuuru bi muy jëm si sëñ bi fekk maliku nuxaat day woy boppam maliku nuxaat mooy ñi nga xëy jàng ba dégg ba nga xëy te mooy xam-xamu naw mu ne moom mooy seen buur amul jëw laqabu ray luxaa awi luxaati aw fasihum baluxaa amul jëw laqabu sultaanu al aarifiin wal kitaabu taanu amul jëw laqabu milku nuhaa aw maaliku nuhaati fiti saa lool loolu wax ñëwul sëñ bi waaw ñëwul sëñ bi loolu loolu mooy euh, xam-xamu grammaire mooy xam-xam bi gën a foo ci xam-xam ci fan yi xam-xam yi euh, lislaam <coughs> ndax fan la ko xam ne gii mel ne naxu mooy mooy mi ngi mel ne da ngay jàng ba dem ci ab dëkk ba bu ñu ñu ñu géej jox dëkk bi ñu ñu pam ñu pamee ko nag euh, boobu nag fekk jéggi woo ko ba biir dëkk bi euh, doo wax ci dëkk bi du wér da seen dëkk bi seen taax ci biir doo ko ñoo ñi nga dem nag ba am grammaire ba nga xëy dañoo ba jéggi ci pam boobu ba jàll moom ñooñu la wax ne moom mooy mooy mooy seen buur boobu jox ko waaye maa ngi wax fi ci saa. waaw mu mel ne noo ko déggandoo kon ci li waral malikun nuxaat gi waaye am na leneen loo xam ne yokk na ci biir muy wal luxawi yi na wal luxawi yi na gi lan bëgg maanaam histoire bi lan moo ko waral ba mu dàkkandal ci wal luxawi yi na waaw loolu li ko waral moo di dafa mas am na fu mu bokk dafa bokk laaj am na fu ñu bokk di jàng ba xamante lool bu wëlalante bis mu bay ko fi mu bay ko dem seeti ci alaj malik noo xam ne ba noppi laaj ko na ko waaw ku kuy ku am eh, na ku na ku jàngale nawu mu ko waaw am na koo jàngale mu ne ko kan ko jàngale mu ko ñax Moussa gii sëñ ma jox na ko woo ko mu sëñ Malik yónnee ci Moussa gii mu ñëw mu ne ko kii de moom ma jàngale nawu mu ne ko xam yaa jàngale nawu mu ne ko waaw man maa jàngale mu ne ko ndax xam nga ci dara mu ne ko ah waaw xam naa ci dara kay su ma ci xamuloon dara kay du ma ko mu ko man maay dama fay ñëw léegi damay ma bëgg nga gaaw lépp loo ci lim sax nga laaj ko ma ma ma leeral la ko ba ma dugg ah góor gi daal di dem daal di bero seet li nga xamante ne moom defe na daal ku dul moom xamu ko defe na moom rek moo ko xam itam moom laaj ko ko bi mu ko laajee nag moom itam mu tontoo ko tontoo ko ay woy woy yi mu def ko arabi jurhum jurhum moom mooy sunu maam Ibrahima ba muy tawax Kaaba ga làkk yi ñu doon làkk ci arab moom moom moom moom moom Ismaïl doom yooyu ñoo Ismaël lakk yooyu mooy arab yi jur xuma dañ ma jox tontoo ko la arab yooyu bu noppee nag def ko ay woy ñu ngi ko joxee góor gi góor gi xool ko xamu ci dara mun ko man mu ne ko ndax lii arab la mu ne ko arab la mu ne ko man xamu ci dara bi mu ko leeralee ba noppi noppi nag mu ne ko waaw kay malikun nuhaat wal luxawiyin waaw loolu ko loolu moo indi luxawiyin jooju waaw moom maa yëmu foofu rek yaay yaay yaay malikun luxawiyin itam maanaam ñi am ñi xam lu ko dal fekk waxoon na njëkk ca njëkk na maliku laqabu hoo raayu luxaa aw yu luxaat luxaa aw luxaat ay ay ay ay lang aw fasihun ba luxaa fekk baax na loolu yàgg góor góor moo moo moo ci indi lu xaw yi ne boobu yooyu ko ñam Musaa gi mu ci indi mal dol moo ko ci dool ci maaliku naat jiw lu xaw yi ne moo ko ci dool yi noonu demee kon mu mel ne ñoo ci li waral wal lu xaw yi yéene gi kon su ko defee ñu gën a eh, digluwaat rek ci dañuy gën a xuus ci loolu moo di Cheikh Amadou Diaw Pakha maliku wal wala luxawi yi ni gim doon gim gim waxoon muy ñu xam wàllum naxu. loolu laa wax fiti maliku nuxaa fiti saha waaw ci waxtu yi mu toll mooy mboolu mu ngi dëgg na ñëpp waaw Amadou fi nuxaati kal yaxsoo bi fi naali wala luxuuru fi rusoo bi waaw la yaxsoo mooy sangu yë mooy sangu yëmb yëpp. ni som mel ci jëmb yi noonu la noonu <laughs> noonu noonu mel ci ñi nga ñoo dégg moo amul fi fi nuwaati kal yax soobu fi naal yi fi rusul waaw. léegi kon ñoo ko déggandoo ci maliku naxaat wala loxo wi yéena nga xam ne Cheikh Amadou Diaw Pakha moo daan ko wax laata muy dikk ci sëriñ bi. waaw ah. kon nu gën a wéyal rek ci liggéey bi nga xam ne ñoo ngi ci lépp rek di waajtaayu sant Cheikh Ahmadou Diaw Pakha ginnaaw loolu dañuy wéy ci eh, Cheikh Ahmadou Diaw maanaam ak sababam dikk ci sëriñ bi ndax am na ay histoire yu bari yuy nettali ne bi muy dikk maam da doon jaay xam-xam am na ñu ne am na ñu doon kii loolu nag lan bëgg Serigne Thioro Diaw leeral nu ko bu mu gën a leer ndax tamit yaatu na te tamit maanaam maanaam wutee yi bari na léegi ki nga xam ne nag moo ko fi nekkal danoo bëgg mu defal ñu ci waxtaan wu yaatu ci diggante li ko indi ci Serigne bi ba ñi nga xam ne ñooy seetaan gën a xam si Amadou Diaw Pakha lan moo sabab ak dikkam ci Serigne bi kon ñu bàyyi ko xel bu baax. moom li ko indi ci sëñ bi mooy la ko la ko jële woon ci kër baay ba mu dem ci juróom-ñaari atam la ko woon na ko demal jàngi-jàng mooy sa wàll mu jàng di jàng ba àgg foofu yi mu àgg kooku yëpp moo ko moo ko naa demal seen sëñ moom moo yor li nga yut mu fekk sëñ bi Mbàkke Kajoor waaw amul lenn ba xam sëñ ma noppi ba ba ba ba li ko li ko xamal li tax mu jàngi moo ko xamal moo demal li ngay wut mi ngi ci biir sëñ bi ba mu ñëwee ba mu jëlee sëñ bi da ko jox boppam لولي يغ يب اي واحد اي واحد نانك لا اي واحد نانك لا واي في في في لي ني جار بنيو سيغ بي رك فو لا جار سيغ موم نيزو نيزو تيار دي جار لي موم نيزو نيان جم ليو نيوم واي لي مولا خري مو كو ني سيغ بي لي اندي سيغ بي لي لي لي فيرني لولو موي كي غنار آه، بيسو بيسو الخميس تي خوماك دي دي بيار كور سيغ بي وولو نولين موم مومو اك اي اي اي كليفو سيغ ما سامبا تي لا بوكو sëñ Modou Deme si la bokk sëñ Ibrahima Diop Masaru si la bokk waaw euh, sëñ maam maam Penda maam maam maam maam Mor Penda sëñ ci la bokk mat nañ juróom-ñaar ba leen sëñ bi waroo ba ñëw boo fee ci gànnaar ci weeru koor ci xumaag fekk fekk mi ngi dar fuur ko mosoon ci ab dundam mu ne ko mu ne ko gars yi xar ko ci digg bi jox ko jox sëñ Masamba mu ne ko Masamba xool foofu yi sëñ Masamba ba mu xoolee. téere bi bi sëñ bi defoon ci dërëm mu fekk ci tur yi mboolem ñi ñuy woo waaw mun naa mu ne kéemaan la mooy daa mel nañ mboolem ñi ci ne bi seen tur yaa ngi ci seen tur yaa ngi nii ci biir téere bi mu ne ko tur yooyu de ba muy ne foofu ñoom ñi kenn ñëwu ci àddina waaw moo naa kenn ku ne ba nga ñëwee àddina mag ma bind la la sax ci tur ndey ak ci turu bay waaye kon dama ko mën a defal ñëpp waaye teewul xamoon naa ne fu ma ne fu ma ne ñoom ñëpp dañu ma fekk kon loolu defe naa ne leer na ci ne sëñ bi ñëw ci moom moom ñëpp moom moo moo moo moo indi moo leen fenn itam ndax téere boobu mu mu mu mu wax sëñ Massa mu xool ko mu xool ko ca muy ful ko mësoon. ma jëw turam nga turam nga ci biir euh, daf ko sëñ Massa ma daf koy lii rek kimaan loolu ndax mu la mel ne tur mooy ñuy teew fii ñëpp seen tur ngi mu ne ko ba ba tur yi ne foofu yi kenn ci ñoom ñëw ñëw ñëw ca dina waaw waaw. mënoon naa kenn ku ne ba gaa ma woo ma ma ma bind la la sa tur ndey ak sa tur baay waaye loolu kan dama ko mën a defal ñëpp waaye xamoon naa ne fu waaw. ci loolee yooyu ne ca rek mooy leen mooy leen andi bi waaw kenn ku ne nag bukk bukk la ak la andi sëñ bi noonu la demee waaw loolu rek la waaw waaye ñoom ñëpp ñoo bokk lu andi bi dañ leen andi ci boppam moo leen fi andi na tamit bi mu dikkee ci sëriñ bi. manam ci jébbalu gi yaakaar naa def na ci ay beuyit yo xamne manam day firnel loolu kon xamna beuyit bayit bu nu ko mënoon diktal graw bam ba graw bam gannaaw ba def la def la def bi waaw gannaaw bam demé bu ñewé bam delo mu lay wax ataytu ko yaa xutbal wara mutaxayiba min al ahli wal awtaani xayraka naasiya wa faaraqtu ahli kullahum bika mumina wa alxaytu saa am min ilayka nawaasiya ولست أبالي بالبرايا جميعهم إذا قريبه والله إن كنت راضيا ويأخذ بجدلي بالمراد جميعه بكوني من أهل الله في الله سائيا وكوني إليه بتأدب واصلا وتليني قلبي بهر ما كان قاسيا وتوصلني إن شئت في نفس ساعة لكونك في سد دهري في الأرض عاليا وإلا فمهما شئت يأخذ يا أخي فإني مخيم بالإخامة العالية وأمر إيالي كله خطرته بأجل المربي بل نسيت الأهالية فورنا يمشي خمنا بمين يو يكتي الله أد بكتني الله لو كنت نسيت بي بمدكاتي كسرين بي كلا واخي بيد يوينون نحن نمو لدون ندكتل لأجني waaw ñu defaat ab leerlu ci diggante Cheikh Amadou Diaw Pakha ndax tamit comme ni mu ko leeralee léegi amaana beneen histoire boo xam ne yaatu na lool ci ñuy wax ne wul du xanbal moom noonu Cheikh Amadou Diaw Pakha moo sàkkoo moo moo ko sàkkoo gis te loolu tamit maanaam danoo bëgg si Ndiara Diaw mii indil ñu ay leer ay leeral yu leer naññi waaw nga xam ne yaatu yaatu na yaatu goo xam ne ñu bëri ñu ngi koy wax naan ay moo sàkkoo gisiwul doxaan bal am question yu mu koy laaj ak yooyu yëpp ci wàllum nawook ay werante boo xam ne am na ceeg te yooyu yëpp am amewul noonu duna bëgg nag mu leeral na ko ba nga xam ne dégg dinañ xam ne lan mooy sabab bi Amadou moom waliyu naar la xam ne bii dafa demoon dafa taalifoon ab taalif ab téere bàyyi fi bi mu faatoo nag téere ba di ko fekk di ko fekk te te ba yi ñëwatul <coughs> moo xam ne téere bi dafa raf te boobu sëñ sëñ Bamba ngi njaareem mu daal di feeñu sëñ Tuubaa ci njaareem wan ko ne ko dawaa liggéey ab boo xam ne dama na fekk bar sax te fekk na wuto ma bëgg nga ta nga yeesal ma ko ndax xam naan ne yaay mu jënd ci kaw suuf ma di la ñaan sama téere boobu nga yeesal ma ko boo ko sëñ Tuubaa nangulee doole wóolu sëñ Mat Jaw mu dellu ba sax sëñ sëñ sëñ Tuubaa sëñ sëñ Tuubaa wóolu sëñ Mat Jaw na ko dawal Mat Jaw bii téere bu ñuy wax su ma raaw su ma raaw sëñ Jaw dem defee téere bi am na mu yónni ku ñuy wax sëñ Mor Ndiaye gis bu Mor Kumba Ndiaye lañ koy wax waaye ñoo mu jëru ñaan ko Mor Ndiaye gis bu moom la yónni ci sëñ Mbàkke Buso jox ko ab jox ko ab leetar jox ko ci wax na mu ndaw ba sëñ Mor jëf su ñëwee ñëwee ñëwee gerte fekk sëñ Mbàkke jàngale ci ji mu toog ba mu jàngale ba noppi mu jox ko caabi ja ak wax ak waxaana sax sëñ Mbàkke wubbi ko jàng leetar ba anam mu dem ci biir kër ga yenn ba ngoon bi daal bi leetar def ci woon kon ne ko boobu téere yi amu fi ba mu ñëwee mu bindal beneen leetar jox ko donc ñool dool ma alaaj ci alaaj Malick loolu sañ mat jëmi sëñ mat jaw mooy mooy mooy mooy yónnee di la ti wërlu téere bi bi amul ba ci sëñ Mbàkke bu ba mu ba ba mu ba mu ba mu ba mu demee ca sëñ sëñ alaaj kooku téye na ko ñaari fan wóor wóor ay bi bi bataaxel def ca wax waxal sa ne ko téere boobu ngay wax amu fi ba mu ñëwee moor yaa gis bu ne mu ni ma sonn nga waaye dikkal dool ma kaw wax ci sëñ Ablaye ñas ay chef ci Ibra ne bi ma demee kooku itam tey dama ñetti fan gëstu gëstu mënut a gis téere bi mu ni ma mu buddi ab lettre wala daal boobu téere amu fi ba mu dikkee nag mën ngaa del mën ñëw dellu si daara ja xam naa ne sëñ bi daa bëggatul mu gis waaye ma laa ma gis ko daal ko sa téere ba amul téere dina daal du maa koy def daal di garaw sëñ bi nangutu koo gis ba jëmi jamono sëñ bi woolu sëñ bi ko woolu xam nga amul ba ni soññi xam nga sëñ bi rek bi mu ñëwee ba jub sëñ ba toog bi da ko woon da ko fotos na ko enterré ah ba mu mu naka naka mu ne ko moo la gisee te andiwu ko mu jóg ba mu demee la defar ay daam defar ay kayitam woo jabaatam mu jox solo fa juuf ne ko sëñ Bamba damay liggéey liggéey boo xam yow rek laa ci boole waaye nag njëkk ma la ci boole demal ca kër demal ci kër wax xam ne gan ak dëkk mag ak ndaw jigéen ak góor jigéen moo kenn sakku gis fekk wuutiwu ko waaw yow yow nag boobu yow nag wolwol bii ñu moom wolwol yi ñu takkal mbaam yi mu ne ko su ma ko yëngalee rek da nga xëy dama laa soxla nga ñëw taxaw ci bunt bi ma wax li ma soxla nga dem wuti ko indi yow bul sori bul sori léegi ma sëñ mbaam yi léegi loolu la ci boole soxla fa juuf ñëw ñëw ci dëkk kër ga bi kat nee na gar dëkk maa ndaw góor jigéen bu kenn sa ko gis feeg wutewul nee na def na ko loo xam ne ëpp jege na jege na weer bu tukkuwaay mat na weer léeg mu yëngal wol ma ñëw mu wax ma lu mu soxla ma dem wuti ko ñëw jënd ko waaye bunt moom du ko mu mu beru nag di bind rek di bind di bind ba téere bi àgg nee naa yor yor la génn rek sol turki dara bu weex kaalawu bokkub téere mu wuti sëñ ba waaw boo xam woon lu mu wuti waaye muy waaye lool lool noonu daal maa maa ngi jàkkaarloo moom moom demee sa baag jox ko sëñ bi sëñ bi xool ko ba mu mel na mu na mu war a mel mu ñaaral ko ne ko jërëjëf mu mu ñibbi ba mu amee ñetti fan nag Ahmadu Bamba yi téere ba tàmbali si yàlla ji di ko di ko fekk ba sax mu ñëwaat sëñ sëñ Tuubaa ci batin euh, woon ko na ko damaa ñëwoon doon sant si ndax sama téere ba xam naa ne xal nañ ko ndax euh, tiyaaba ja doon ñëw ma ngi ma ngi ñëwaat ci man waaw waaw euh, ba xam ku ko yeesal ku yeesal yeesal sama téere boobu sëñ bi ne ko kenn ci fer yi mu ko ndax mën naa koo gis sëñ bi ne ko waaw mën koo gis sëñ bi yónni ab bëkk nit na ko dewal wooyu ma ma jaw digg ba cëg ki ñëw bëkk ne bu ñëw foofu ci kër kooku ci ndunga ko ci njaaram ñëw fekk sëñ ba doon ñëw luy sëñ bi ba ñu àndee ba ci kees gi sëñ bi ne ba mu wuyu kees ga la ko joxoon ñëw ba ko nee bi war a moom moo rey man fi laa jëm ba nee sëñ ba doon mu ñëw ci buntu bi naan asalaamaaleykum sëñ bi ne bi mu duggee rek mi ngi jàkkaarloog naar bi sikkim baa ngi bu suuf daa su daa daa suumu daa kaalu kaalu goo xam ne bëri rek laay gis ak sikkim bi ak bakkan bi waaye su sikkim baa ngi buubu waaye na ko woon gannaaw euh, suufu sëñ bi ñoo nuyoo sëñ bi sëñ bi non ma yow kii sa naw ku baax la ma wóorul ko jox ko loxoom mu jox ma loxo téye mu téye loxoom ma téye sama loxoom ma téye loxoom ma téye sama loxoom yàgg mu bàyyi sama loxoom mu bàyyi loxoom sëñ bi non ma yow mën nga dikk dellu ñaar ma génn sëñ bi waat ma ñëw fekk mu dem mun ma jëm yooyu nga doon nuyu ndax xam nga ko ma ne ko ci sag baax de xam naa ne bëggul ci waa adduna waaye xamul ku mu xam naa ne bëggul ci waa adduna mu ne ko Ahmadou Ambal Yongo gii ba ba mu téere booy mënoon yaxloo kooku yi moom moom moom moom moom moom moom nga na gis la moo tax mu wolo kon dañoo sawaan ji da doon si sàkku it gis moo tax mu moo tax ma wool moom laa la moom laa ko doon woon waaw ko jëmu jooju ba bàyyi ko addina ak ak jii téeméeri at la ba bàyyi ko addina ak ren jii téeméeri at la sëñ mat jaw man daal ko ñaanal mu génn sëñ mat jaw ci atti bi la bind ci loxom ci suuf si araniyal xadimu walda ambali nisfa nahaari wal mamatu asbali asbali boobu mu téeméer ba mu demee ba këram nag naan araniyal xadimu imna ambali badal mamati wal mamatu asbali la demee waaw noonu nii la demee amul bu ambali moo sàkkoon gis sëñ mat jaw ci gannaaw bi sëñ mat jaw yaxalaat téere bi ci digal sëñ Tuubaa ba noppi moom sax moom sax sëñ Tuubaa sàkku nag gis sëñ Mat Jaw mi mi yaxal téeram bii sëñ bi sax waxu ko benn tur daf ko nag kenn ci fare yi moo ko yaxal mu ne ko ndax mën naa ko gis sëñ ko mën o Mat Jaw woow kon noonu lañ loolu demee dañuy safaan dañuy safaan nan dam demee amul am bal sàkku woon ñu sëñ Mat Jaw sëñ Mat Jaw sàkku koo gis du gàtt du jolof itam njëriñ gi la waaw du jolof itam njëriñ gi la waaw kon day mel ne euh, dégg noonu ko ci ni ko leeralee leer na nañ ñi ci ñi ci ñuy seetaan ak ñuy dégg danaan xam ne kon ndagate Ahmadou Hanbali moom moo sàkk koo gis Cheikh Amadou Diop Paxa ah, ci noonu ma ko nettalee léegi xam naa dañuy wéy ak yéen ci jataay bi li wax ne Cheikh Amadou Diop Paxa ah, nekkoon na gànnaar lan moo sabab ak nekkam gànnaar loolu la ñu sëriñ bi fas yéenee digtal. jërë ngeen jëf mbokk yi doon seetaan seen seen Khelcom production ba beneen yoon incha allah.